ñàkkum jën ak itam yokkute gi ñu daal di nemmeeku ci njëgub dind gi loole nag daal na bokk ci li nga xam ne laal na yi la jigéen di yëngu ci njaayum lakk jën fii ci plage bi si yaawo gannaaw kàddu yu ñu yëkkati àddunan jëmale ci seen wàllub liggéey ci jamono ji nga xam nag tàngaay wi daal dina doox fii ci plage bi si yaawo ñuy xam ne nag ni gi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waa nit ñi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mais yi ñoo xaw a cher yaa ma a xam jën amul bagage yi yokk nañ ko euh, et tout mais sinon moom client yaa ngi ñëw yaa ngi gis géej gi nii été bi daanaka gars yi anticipé nañ ko te accès gu. <laughs> waa jën bi amul bagage yi cher na mooy loolu. incha allah waaw incha allah ñu ngi fi à partir de huit heures wala sept heures et demi day fekk ñu ngi nekk di def mise en place bi entre sept heures waa après onze heures day fekk lekk yi pare ñu commencé nekk service midi. ça dépend ci client bi. ñu ngi see fortaatu nank par nank. te Sénégal moom tànk ba tàngee rek duñu xaar vacances duñu xaar été tànk tàngaay baa nga ñëw client yaa ngi wàcc si ñun huit heures si suba la ñu xëy si huit heures ba amuñu heure boo soonee rek arrêté amul heure hmm, parce que nit ñi moom ba vingt trois heures dañuy bëgg lakk jën dañuy bëgg a sebon dañuy bëgg xeet yi saf yooyu noonu ba pare dafa xaw tàng dañuy génn pour féexlu balaa été bi xale yi gën a wàcc si VIP heure bi la ñuy wàcc waaw jën moom mooy feebar sénégalais jàngoro ba njëkk a wax bu ñu jooy corona dëggantaan jën la war a jooy mooy suñu corona ñun parce que jën léegi dafa manqué li nga doon def 200000 francs am si léegi boo deful doo ko am jën moo amul te léeg-léeg gis ko ñëw ànd ak famille am yor benn 2000 francs wala benn 2500 bëgg a lekk ba suur jën daal mooy suñu problème nañ bàyyi géej gi moo dem nappi ñun jaaykat jën ñu am jën man daal loolu laay jooy loolu mooy suñu feebar wax dëgg yàlla non yokkuñu ko noo ko mën deux mille cinq cent trois mille mën naa wax plage Sénégal yi BCEAO moo gën a yombale parce que ñun dañuy jàppale waale ñi nga xamante ne dañuy ànd ak seen famille waaw sant yàlla rek bu dee cent franc nga ci am sax a xëy tëdd sa kër waaw tàmm la ah, fi ñu toll ni kay li lépp loo doon jënd duubal nga koy jënd fu ñu jën amul doolu bi cher la lépp a cher ñàkk xam la xam ne lii rek la ñu xam mais sinon dañuy dem seeti leneen mais metti na torop dañ tool foo xam ne loo liggéey rek delluwaat si marché donte ñu ngi gis client ndànk-ndànk fii ci plage bi Bisseyao yi jigéen ñi ngi am yaakaar ni bu tàngaay bi gën a jub si njaay mi dina gën a dox